mën na ñu ko seede daana ma woo di waxtaan ak man ci lu jëm ci diine daana ma di ma laaj ay masalay diine kon day wane ni diine ñoroon na ko mais bee bu lu dul jëfe diine ak tegoon tànkam ci siraatal mustaqim du ko fa fekk waxtu bii mu génne àdduna ñu ko ni nañu ci rafet njor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa xadis ñëw ci bu wér aljuma ku ci denc yàlla ko te aljuma di ngi tàmbali kusaani alxames bu dee bu njëkk ci bàmmeel

nit bu jullee julli juróomam woo weeru kooram wattu boppam ba mu may yàlla topp ndigalu borom kër bu kaatoo dañ naan ko àjjanaa ko bu bu la neex mu gën te borom këram gërëm na ko kii dañ wax nee na ndayam gërëm na ko yonent bi koo fa laay tëjee dafa am soxla su

war na ko nekk ku jàmbaar yi ku taxawoon na ko weexoon na ko daawul gis mu daawul ñu jàppal ci moom lépp moo ma woon kon tey jamono ji nekkul nga bàyyi sa yitte ñëw ànd ak baax bu baax sant nañu la gërëm nañu la sama Cheikh Omar bee wax na ko dëgg la voilà mi ngi noonu Mara Niass mi ngi noonu di dem donc euh, voilà ñu jéem a waaye dafa mel ne dafa xaw a euh, pressé bon malheureusement waaye dinañ jéem a xool euh, voilà. voilà ngi noonu Mara Niass mi ngi noonu ma nekk noonu di dox noonu comme ngeen ko gisee noonu def gazinière bu vert di dem ci levée kilifa yëpp ngi ñëw kilifa yëpp ngi noonu di ku ci nekk di jëmbat di bàyyee ko ci ki nga xamante ne moom mooy borom këram jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo fi bàyyee ko muy muumi ginnaaw rek bi nga xamante ne itam yëkkati na ay kàddu seede ci digganteem ñi ak ñi nga xamante ne ñoom la doon liggéeyal digganteem ak waajuram bu jigéen waaye digganteem rek ak la nga xamante ne sekk na ko ak moom muy njort wala sax lu am loo xamante ne wóor na ko ne que jullit la woon te daan na itam gëstu wala sax di jéem di matal ci li nga xamante ne moom mooy diineem ne kon am nañ ci moom joxtu bu rafet moom mi nga xamante ne moom moo fi bàyyi ko mu wuyu ji boroomam ci weer wi nga xamante ne weeru gàmm la tombeel waaye rek guddi goo xam ne itam guddi ajuma ñu fas yéene ko ci jébbal boromam muy moom i dañu gay ñu koy ñaanal yàlla mu deseeg njéggal suñu borom yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana waaye rek ñu nemmee ko fi comme li may waxee rek kilifa diine bu nekk euh, teew na fi tey waaye rek autorité yu bëree bëri itam teew nañ fi tey ci kóllëre gi nga xamante ne kon dox na ci seen diggante ak borom këram seen diggante ak moom waaye seen diggante ak baayam bi nga xamante ne kon mi ngi maa ngi lay taxaw euh, voilà ñi jéem a mu daal di ci sànni ñaari kàddu waaye xam naa nag gis naa dina jafe comme ni ngeen ko gisee noonu moom moo nekk noonu ci biir oto bi gis ngeen moo euh, nekk noonu euh, samay naataango journaliste yi nag ñu ngi jéem a waxtaan ak moom parce que mu jëm ci sànni ñaari kàddu def ay témoignages waaye nag comme ni ngeen ko gisee noonu euh, du ñàkk nag jëkkal leen li nga xamante ni moom lañ nekk di wax ni dina jafe waaye ñu fàttali dafa ñëwoon ci levée du bi dafa ñëwoon euh, euh, ànd ak tiis bi nga xamante ni moom mooy xaritam Bougane Gueye Dany donte bokkuñu ay jubluwaay ci wàllu politique waaye nag teewul bu tiis bi dalee si moom bokk na si politiciens yi nga xamante ni voilà ñëw nañ ngi daal di mosaw ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany donc en tant que sénégalais mais en tant que compatriote mais en tant que naataango ñi nga xamante ni ñoo bokk ci li ñu yëngu euh, Bougane Gueye Dany xam ngeen dafay yóotu li nga xamante ni mooy élection présidentielle euh, naka noonu ki nga xamante ni moom mooy Malick Gakou également gis ngeen ni moom tamit euh, dafa yóotu nga xamante ni moom mooy élection présidentielle waaye nag teewul comme ni ma ko waxee bokkuñu ay jubluwaay waaye Malick Gakou ñëw na ànd ak cortège am daal di ñëw dugg ci biir jàkka ji daal di sànqanteeg nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany donc voilà gis ngeen ko noonu muy wax ak suñu naataango journaliste yi euh, journaliste yi noonu euh, voilà voilà wax euh, moom nag comme ni ma ko waxee ñu noonu bëggoon nag yëkkati bëggoon voilà ñu daal di teewlu rek julli bi